amul dara lu ñu soo xam ne dafa affaire personnelle la. defar rek moo ñu si tax a jóg. defar rek ah Karim tey moom ah verre yi nii. mais gerte wala ah. boo gis. ah. xanaa dama nekk ci utum ñaareel gu metti na. ñaareel waaw. <laughs> Karim am na ay kàddu yoo xamante ne jot nga ko yëgati laataa bi le plateau mais yooyu moom xam naa ne. Hmm. damay bàyyi ba après ñu yeggali ko ko eh, non yooyu moom yow fu nga jóg sa bopp. ah foog nga a jóg sa bopp. non ah, mais ma jóg ba si kanam rek. après soo ngay jublu ci. sa bopp. Hmm? dugal ci sa <laughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax euh, Karim euh, di leen jaajëfal tamit euh, yéen les internautes de DK 221 donc boobu ba tey yéen a ngi ko doon laajte tamit il est de retour donc fas yéene waxtaanee rek lépp luy jëm si wàllum actualité tolluwaayu réew mi dañ koy doorani dugg ci bile waxtaan alors Karim ban jàngat ngay def gannaaw ba ñu jugewee ci élection législative. ñu gis ne que parti bii di Pastef euh, ñoom ñoo remporté ñi nga xamante ne moom mooy euh, lay jongante alors sa appréciation ak ay développement lañ bëggoon ci wàll boobu. waaw ah, déjà déjà maa ngi koy wax rek la fa ma mhm. expliqué ma ni d'abord li jiitu mooy d'abord féliciter. Mhm. Pastef. Mhm. féliciter Ousmane Sonko ak Diomaye ah parti au pouvoir si euh, résultat si ci vraiment seen seen victoire bi bon du ma ne victoire mais seen seen li nga xamante ni mooy jéego benn jéego bi ñu def. defe na bi mooy ñaareelu jéego bi ci li prouver que ni askan wi am nañ confiance ci ñoom et askan wi jox nañ leen lépp. léegi nag pour man victoire du loolu du du du ñu voté la mais victoire mooy li tax ñu lay voté est yow di nga cest dal dal bi ñu am. xam nga voté ci dal ku nekk dem dellu wane exprimer wu ci urne yi wan sénégalais yi ne leen ñun on a confiance et on a voté Pastef. Mhm. tu que di di wax rek ni ko euh, ñoom di leen ñaanal aussi lii nga xam ne sénégal yi séntu nañ ko ci ci parlement bi. ci mhm. hémicycle bi. ñoom ñu tamit ñu fexe ba ñu ma ko. tu vois ce que je veux dire. Euh, ñu bañ a tas yaakaaru Sénégalais yi. donc loolu c'est très important. c'est très important euh, waxee tuuti si waa Pastef ban jàngat ngay def nii euh, ci opposition bi parce que gis nañ ne que les différents acteurs yi nga xamante ne ñi ngi woon ci kujje bi la plupart dañ leen euh, gagné si seen ay propre bureau moo waral sax jamono ji ñu gis une silence absolue mm-hmm. de la part des acteurs politiques yi nga xamante ne ñi ngi ci beneen wàll bi. waaw xam nga xam nga man damay wax souvent ma ne yàgg naa ko ma ne gis nga yàlla bu namee dara. même mm-hmm. temps yi sax dañuy dox jëm ci dañuy dox jëm yàlla bu damay dara même temps sax dañuy dox jëm ci loolu léegi nag loolu yàlla di def mhm. yàlla dafa am liberté bu mu doxal yàlla dafa bëgg liberté parce que nguuram ci nguur yàlla gi yàlla ci turam yi liberté da cee bokk mhm. moo tax dafa jël doomu aadama ko liberté benn moment moment bi mu jox liberté doomu aadama nag li doomu aadama bi moom liberté bi su ko delluwaatee yàlla foofu nag la yàlla di yëkkatee doomu aadama bi d'accord moo tax lii xew nii ak ni mu demee nii yëpp mhm. lu war a am la di am te yi dañoo bëgg ñoom changement quoi. Mhm. rupture totale. taqali ko système bi fi nekkoon. d'accord Sénégal yi loolu lañ bëgg. léegi nag reste à voir est que ñiñ topp di leen voté jox leen pouvoir yëpp est-ce ñoom nañ def rupture est-ce que dinañ def changement est-ce que ñi fi nekkoon jóge nañ fi mais est li fi nekkoon dina fi jóge. d'accord donc loolu. yooyu mooy ah. questionnement yi tey mooy léegi nag opposition bi mooy li ma lay wax. mooy mhm. euh, bi ñu si war a am mooy ñu accepter d'abord. d' abord félicité je pense que def nañ ko gis naa si quelques uns yoo xam def nañ ko. Mhm. ba pare bu ñu mënee dem dooleel pouvoir bi. topp ci ñi doxal ànd liggéey Sénégal ñun ñëpp ñu ànd nag. dox jëm ci liggéey Sénégal pour man foofu lañ toll. foofu lañ toll et euh, nekk nag ay sentinelle nekk noo xam ni on di wane ni on les a àndee. Mhm. di leen wax ni fii. Euh, intouchable amu fi. Mhm. comme ni ko anglais di waxee intouchable amu fi. ah et dañuy topp pas à pas tànk ak tànk mbagg ak mbagg xool bu baax li nga xamante ni moom leen askan wi jox. Mhm. Euh, ñun en tant que lanceur d'alerte aussi. ñu jël suñu matuwaay def suñu liggéey. Mhm. ci ni mu waree lu ñu gis war ko wax wax ko lu ñu gis ni rafet na ñu ko lu ñu gis ni waxu rafetul ñu taxaw ŋàññ. comme ni ñu ko ni ñu ko yàgg defee ci ci ci régime bu nekk. d' accord euh, gannaaw bu Pastef chamboulé li nga xamante ne moom mooy euh, bile arène politique. Mhm. donc dañuy demaat sur une redéfinition du paysage politique si wàll boobu tamit euh, ban lecture ak tey ji lan ngay ni sur les différents acteurs surtout ñi nga xamante ne tey ji ils sont impliqués dans le champ politique. waaw mais xam nga xam nga man dama mooy comme boo seetee sa question bi. répondre répondre naa ko aussi dafa réponse ma la jox léegi fa lay delluwaat rek. Mhm. dafa am Sénégal état de droit la. Mhm. état de droit mu am pouvoir exécutif am pouvoir législatif. am mhm. pouvoir judiciaire. pouvoir judiciaire nekk loo xam ne ñun bokk na si li ñu doon xeex. Mhm. pour mu indépendante parce que ñoom loolu mooy état de droit ñu gis ne exécutif bi à chaque fois da doon piétiner ci législatif bi di piétiner ci judiciaire bi. léegi ñun ñu ne li ñu doon xeex yëpp mooy fexe ba pouvoir yi indépendante Sénégal nekk état de droit boo xam ne dëggal du yem rek ci ay wax. ñu koy dëggal quoi nga ni. Euh, justice bi day indépendante président dootul siège ci euh, au conseil magistrature ak yooyu euh, assemblée nationale bi aussi indépendant donc yooyu léegi nag yooyu lii di dox nii nag cette fois-ci ci la ñuy xam nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ndax loolu lu mu nekk wala lu mu nekk la parce que ñoom boo seetee boo waxee dañaa lan léegi nañ ñu jox majorité bu ñu joxee majorité insha allahu rabbi nañ ci la mën a def loolu très bien léegi nag peuple jox nañ leen majorité xam nga ngay moom la ak la fois parce nga naan mën naa tabax mën naa tabax mën naa ba ñu jox la ciment jox la suuf jox la lépp pour tabax donc yow boo tabaxul tooñ te moment bu ñu toog tabaxuñ ko rek ñu ngi amee Sénégal ay àq donc loolu moom loolu laa si wax. donc place au travail daal jamono ji amul leneen. liggéey fii liggéey rek moo fi sës liggéey rek moo fi toll. te liggéey rek ci liggéey rek lañ toll. amul leneen. ba pare aussi accepter aussi critiques yi parce que aussi ku lu ñëpp bokk ñëpp lijjanti la. tu vois ce que je veux dire ñëpp bokk ñëpp lijjanti la. affaire ah bi c'est parce que voté woo kii wala ànd nga kii wala àndoo rek tu n'as pas droit aux paroles waroo wax waroo loolu mooy état de droit démocratie loolu la. Mhm. kenn ku nekk am nga sa kàddu boo yëy yàbbi. jëmale ci pouvoir bi boo yëy yàbbi jëmale ci doxalinu réew mi. Mhm. ñoom nag li may leen wax mooy sénégalais yi wane nañ que majorité sénégalais yi la majorité dafa ànd ak ñoom. Mhm. la ñoom ñoom la àndal léegi ñoom nañ fexe ba li majorité bi ànd la ñu a ñoom loo leen taxoon a loolu nañ fexe ba loolu ñu nekk ñu des ci loolu te mun te te confirmé ko parce que léegi amatuñu alibi. très bien euh, suñu jógee foofu tamit am na beneen mbir bi nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee euh, sur euh, lactualité actualité muy li nga xamante ne ñu bëri ñu ngi évoqué une certaine dualité. noonu laa ko mën a tujjee def ko entre parenthèse entre le premier ministre Ousmane Sonko ak le président de la République Bassirou Diomaye jaxaar Faye sur ce ñu gis euh, des analystes politiques ñenn ñiy wax ne que le premier ministre doit quitter la primature pour dem fëri nga xamante ne moom mooy euh, assemblée ci wàllu boobu tamit est une logique wala tey jii le premier ministre dafa war a des au sein de la primature pour assurer li nga xamante ne moom mooy euh, la tenue du gouvernement. waaw bon man bon man nag je pense que loolu moom assemblée moo koy décider quoi. assemblée ah majorité bi assemblée ñooy décider. ñoom ñoo voté parlement bi exécu euh, dimanche nu mu tudd pouvoir pouvoir euh, législatif bi ñoom assemblée parlement bi. Mm-hmm. ñoom ñooy décidé kan mooy nekk président assemblée nationale ñoo xam ñu gérer seen euh, mm-hmm. seen seen seen seen politique en tout cas li am solo pour man. Mm-hmm. ma mën a wax man en tant que activiste. Ah, selon yow mooy bi may xaar. du nekk. mooy li peuple sénégalais bi ñaxtu yàgg koo jooy pour am ak pour lijjanti ko ci parlement bi te ñu ne ay texte moo ko mën a defar. Mhm. muy li peuple parce que loolu yëpp assemblée ci la Sénégal mën a defaroo fa la jaaree yàqu ba faw waaw léegi nag Ousmane Sonko ni ma ko xamee ak ni mu bëggee nguur man gëmul Ousmane Sonko dina jógee ci primature bi am assemblée nationale. waaw question boobu. privilège yooyu nag privilège yi. Mhm. privilège yi li gars yi di bañ noonu ñu wax ko privilège yi nga xamante ne moo nekk ci moo nekk ci premier ministre. Mhm. noonu la ak ni ma ko gisee en tout cas bu façon man daal xam naa ni daal. Euh, fu ñu ci mën a nekk fu ñu ci nekk rek nañ fexe ba ñu ñu ñu defal ñu fexe ba sénégalais yi daal li ñuy xaar. ci ñoom ci attente. ci parlement bu digne de son nom. espérons que peut-être nañ ko def. Euh, ñu gis des personnalités comme Seydi Gassama Moundiaye Cissé ñoom jot nañu euh, jël le contre-pied d'Aliou bi nga xamante ne moom nee na pour servir le Sénégal et continuer à l'équilibre des pouvoirs il doit occuper li nga xamante ne moom mooy euh, la présidence du parlement Seydi sama moom kàddu yu mu yëkkati nee na ceux qui disent que Sonko doit aller à l'Assemblée ne veulent pas la réussite du projet euh, Moundiaye Cissé tamit euh, kaddu yi nga xamante ne. yëkkati na ko ceux qui disent que Sonko doit aller à l'Assemblée ne veulent pas la réussite du projet de Pastef. ok ça des fois aussi doo comprendre par rapport aux analyses parce que man je ne comprends pas parce que en réalité lii pouvoir la dëkk la réew la te ñoom ñoom c'est même parti bi moo nekk pouvoir Sonko si si si ñoom c'est Diomaye nest pas. mais euh, tey jii nii euh, ñu bëri ñu ne si Ousmane Sonko tey jii mi ngi nekk euh, su nekkee le président. waaw de l'Assemblée avec la séparation des pouvoirs. am na ay mbir yoo xamante ne dootu si impliqué wu quand même. non xam nga man je pense que. am na si yu bëri yoo xamante ni. Mhm. Euh, bu fekkee ni ils sont de bonne foi. Mhm. xam nga et que euh, Pastef moo nekk au pouvoir rek. Mhm. Pastef la quoi parti pouvoir au pouvoir la rek. et président assemblée nationale fii Sénégal dans l'histoire président assemblée nationale ak président de la République mosuñu réeroo a la séparation des pouvoirs. la séparation des pouvoirs mais cest à xam nga fii yow xam nga Sénégal yow yaa ma gën a xam nañu waxante dëgg rek. que mu nekk président assemblée nationale terewul mën na mën na déggoo ak Diomaye ci yu bëri bëri yoo xamante ni am nga sa ni dëkk bi tëraloo. mais y mais xam nga koy waxtaanee doxalin ko doxalee ko mais gis nga gis nga fii séparation pouvoir bi ñuy wax mais gis nga ni fii est ce que mos nga gis président assemblée nationale ba am problème président de la république mos loolu bëriwul fi lu muy am kan moo ko fi defoon Macky Sall mu fa mais ce que tey jii nii. ils fait voté bi fexe ba jëlee ko foofu. Mhm. mais avec euh, l'installation du nouveau régime. Mhm. yi nga xamante ne euh, comme cheval de bataille euh, prôné nañu li nga xamante ne moom mooy jub jubal jubbanti bi. donc mhm. les critères étatiques dinañ ko appliquer ba si wàll boobu noonu dinañu appliquer normalement li nga xamante ne moom mooy cette séparation. espérons et on je pense que peuple bi am espoir loolu moo tax ñu jox leen lépp jox leen lépp tous les pouvoirs. Ndiaye Cissé Sonko mieux placé pour en décider mais la primature est une station euh, idéale pour conduire le projet. waaw mais cest à le projet su fekkee ni le président moom matewul pour conduire le projet Diomaye moom il suffit Diomaye ne suffit pas Diomaye il n'est pas apte à conduire le projet c'est quoi le problème en fait parce que ñoom mooy chaque fois rek ñoom ñoo xam ne Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko qu'est-ce qui s'est passé entre temps.